salaamaaleykum salaamaaleykum yaa sama gars yi what's up <laughs> ba namoon naa leen quoi maa ngi sama benn maa ngi sama koñ quoi waaw mooy loolu quoi toog sama gars yi fii waaw non du ma seen tur quoi parce loolu quoi eh, sama benn bërëbu joobu quoi yi ko waaw boo nekk leen si jàmm bon tey damay wax si làmb quoi tey si làmb ji laay wax analyser combat yi wax ci euh, Balla Gaye euh, Gris Modou la Lac de Guiers wax ci Ama Baldé Papa Sow tu vois wax ci yenn mbir daal en làmb rek laay tey tey waxuma leneen làmb rek laay wax bon léegi bi ñu njëkkee mooy euh, euh, alu ma njëkkee ban. Modou Lo Lac de Guiers waaw Modou Lo Lac de Guiers laay laay laay laay laay njëkkee quoi si nekk li nga war a moytu quoi bon ñoom ñaar jëkkoon nañ bëre bi ñu bëre a vrai dire bëre bi neexul. amul xex amul clé amul fakhat amul dara béré bu sof béré bu sof lañ fa def jarul sax 2000 francs légui ñu ñëwaat té béré bobu bi béré tamit ubbi sen lamb lañ defoon comme ñi si signature contrat yi di wax ku nekk di bak di bak bi ñëw ci si bi moy lolu tu vois bon légui jox lañ leen revanche xanaa yabuñu sénégalais yi revanche moom bu ko waxé manam pour mu tangala pour manam lér won lér ku ci nekk wax na li ngay wax ubbi sa lamb ki naan xex li ki naan li nii affaire yi quoi tu vois te man su ma amee lu may wax sama maanaam euh, côté euh, làmb ju neex man Modou duma ko ñaax parce que bien vrai que Modou euh, góor la parce que moom làmb yu mu bëree maanaam day attaqué quoi Modou kenn dox di attaqué parce que day day songu day songu ku songu bombardier mën nga songu ku ne ku dëggal sa bopp ak Balla Gaye mën nga mën nga kii ku ne donc bu ñu waxee objectivement làmb bu neexul bu ne làmb ji bu na xaree rek Lac de Guiers la parce que Lac de Guiers moom su doon joueur football ñu ne la moom moom moom day défendre rek lak moom day défendre day rasu rek bu gisee lu leer dem moo tax léegi euh, làmb ji léegi man laa koy décortiquer Modou Lo Modou yow poids léger nga Modou doo poids lourd fi nga dugg du sa place sa jom la fa yóbbu ak sa sa fit quoi mais làmb ji Modou da nga si war a tey ndax li nga si war a tey mooy maanaam euh, lak bi nga doon bëreel du lak bii parce que lak bi nga doon bëreel mooy lak bi nga xam ne tey maanaam euh, lak daawul jël initiative maanaam daan na rasu amul woon si confiance si moom si moom trop amoon na doole mais da daan rasu rek rek rek ba pare maanaam euh, daawul bazar de combat ba léegi du bazar de combat am mais dama lay woon la la mooy différence wu Lac de bi dafa ñëw bëre ak euh, Papa Sow daan ñëw jël Lac de Guiers te mu jël Lac de Guiers benn woon mooy maanaam daan Lac de Guiers pour joxaat Balla Gaye parce que dafa ne ni Lac de ñëw nag euh, la mu daj ko wax kenn Lac gën nekk xeeru géej si la maanaam Lac dafa dangereux Lac ñëw daan Yékini léegi mu daanee Yékini nag doon jigéen wala euh, jigéen ma ne jànq dafa cókkal fu mu ne nii fu daan la Lac de du ko gëm moo tax Modou Lô a def très attention parce que Lac de Guiers leneen nag la gëm mais maanaam mu daan la boo songee mu jàppale daan la soo xeexee mu wàcc la loolu la bëgg maanaam nga ñëw defe ne yaa ko dàq bëre yaa ko ba nga ñëw sorxo sorxo la Modou loolu boo ko defee gëm naa di nga am trop loolu moom daal diglu ma la ko quoi yow Modou léegi yow Modou man ni nga war a bëree pour man Modou maanaam bul bëree public maanaam Modou bu maanaam boo amee benn public bi Modou waroo jaay sa combat parce que yow Modou maanaam ñi la bëgg dafa bëri Sénégal kenn mënul waat ne Modou fi bopp fans amul donc yow ginnaaw googu bu tolloo ci yow Modou da nga war a maanaam bëree xel bëree maanaam euh, tactique ba pare bëree loo xam ne maanaam say combat nga bañ ko jaay bul ñëw rek naan yaa gën a wala Lac de Guiers nii Lac lu ñu sorxo sorxo non non ku lay nax bay bul bañ sax bañ a nulaat amal deuxième nul Sénégalais yi ne la bëree woog yooyu noonu parce que da ngay xool li nekk si ginnaaw Modou boo daama rek ñii dañuy dee ñaan ma ko yàlla mais ñii dañuy xëm xeex yi bëri fi werante bi bëri fi tu donc yow Modou nii nga war a bëree pour man da war a bëree maanaam comme ni euh, Ama Baldé bëree euh, Tapha Tine lu ragal mais stratégie la lu réglé la maanaam lu réglé bu ñu dajee daam na war a bëree te jii yàgg ba euh, Gris Bordeaux bi yéen a ko li nga fa baaxul moom beneen Modou Lo ñu xamoon mais boo xoolee li nga daanee Gris Bordeaux mooy maanaam loolu moo loolu parce que corps à corps yaa Gris doon wala arrangé Gris moo la diis mais nga doon jam di reculer ba saa waay nga faaxat ko mu def karaté foofu bëri nga stratégie bien vrai que nag neexul mais Modou yow doo mbër moo xam war a ñëw imposer la de guerre wala nga ñëw imposer parce que loolu mbër bi koy def mais maanaam mbër moom doole benn bombardier na ñëw ne man damay imposer wala parce ñom ay luur lañ dañu jiddu nek ay mbeur yow kat nga yalla mo def nga am bayre am technique tu vois mais bo ñëwee rek ne da ngay imposer la de guerre di nga am loolu la naqari trop trop trop waaw mo dal li ma leen di ñaax tamit la de guerre la de guerre bul bay sa manin soo bàyyi sa manin da ngay jéem imposer parce que daan nga yiki ne ki mën nga daanu li lay may ndam bu ko bàyyi xaar nga daan def di am xaaral ba yalla may la ndam modlo li ngay songu manam songu bi sa combat bi muju yak bombardier gis bi nga songé nga si donc loolu tamit xool ci bu baax balaa ngaa songo xoolal bu baax parce que li si gannaaw dafa rëy man daal loolu laa leen combat bu neex lañ bëgg nag maanaam waxuñu kii taxaw taxaw waxuñu kii songo songo maanaam daal na leer ku nekk daal na nga bëree sa manin te xam ne revanche la te revanche moom bu ñu ko defee maanaam dafa war a leer quoi ku nekk euh, euh, xam ne Balla boo amee cent pour cent faculté Balla maanaam Balla ba muy baax parce que yenn yi ragal la Balla ba muy baax dëgg-dëgg am na bu baax yi maanaam peru bët bi di daw mu wér mbeur mo songu dang koy taxan ci 2 secondes mais deug neexul Balla gay bobu nekatul Balla gay bi donc Balla gay bi c'est le retour donc retour bi manam Balla bo daano man xamu xamu fo jëm day metti top sa lamb nak mënu yaaxu sa carrière lamb mënu yaaxu parce que manam mbeur nga da fa def lo xam ne kenn yaay Ronaldinho ñak ñaar ak du mono du yaax sa palmarès mais Balla euh, xex bi ngay wax man digalu mo lako parce que Balla bu ma xoolee combat yi nga ñak yépp da nga xexé xol ya Eumeu Sène da ngay xex nga jël ku daanu yaag Bombardier man bu dul forme bi ngeen di bii baaxul forme boobu nga xam ne moom baaxul da nga xeex jël coup Bombardier daan la donc Balla leen na nga war a def yaa ngi entraîné yaa ngi ñëwaat nag physiquement yaa ngi ñëwaat nii maanaam nga teey jàpp parce que yow Balla mosoo jàpp ngemb bu nit ba mu daan la à part Issa Pouye si mbafat ñi nga jàpp seen ngemb ba yëpp nga leen daan donc li ma lay digal mooy maanaam Balla jéemal jàpp ngemb bu Gris Bordeaux nga bëre parce que xeex bi avantage na yaa naa a xeex da nga mën a donc jéemal jàpp ngemb nga daanu nga nga daan nga daan Gris Bordeaux man daal loolu laa lay digal su ma digal moom nga jéem parce que Balla gi nga am ngemb nag bi nga commencé xeex ba léegi amoo ngemb Gris Bordeaux Gris sax dañu face à face ma gis ak Balla Gaye Gris dama wax naa essayé ngay entraîné sax parce que Gris man dama gis benn pas benn dafa mel ni benn pas moo taxaw Gris Bordeaux bi bëroon nag Balla Gaye bëroon nag Balla Gaye di écarté tànk yi di woo sow niin def flexion non Gris Bordeaux boobu gën a ñëw Gris da nga war a entraîné a entraîné man fu mu ne nii Gris 2 sax a gëm so bëggee naan Balla Gaye Gris da nga war entraîner parce que Gris ñu xam ne kan nga da ngay jam am safara mais ni ngay bëree que euh, ni nga forme bi ngeen di face à face bi forme boobu convaincre ma Gris da nga war a liggéeyaat indi forme bi ngeen contre Balla Gaye 2 nga ko Balla bay daan la mais ñëpp a d'accord contre Bombardier da ngay tëb écarté nin bat Gris boobu Gris boo 2 boobu la ñu xamoon waaw mais loolu moom boo ko ndiwul moom vraiment yàq Balla Balla dina la humilier te maanaam tigir bi moom dootoo ko nekk moom xanaa le le chat la ñuy wax lu ne di nga ko dégg waaw parce que contre contre contre euh, sa bopp li nga bëri baaxul jàpp mo Lo beure xol lour day jàpp beure mais kon du Modou ngay beure di dor-dor, ba dana sa bop ya dana sa bop tu vois bon ma ñambaas ci Papa saw Ama euh Papa saw mom li dal Gris do mo xel Papa toujours ya dana sa bop Papa vraiment nga bal mais Papa da nga eppal Papa da ngay ñew di tarxis contre Modou Lo da ngay tarxis contre euh, euh, la de guerre ngan dem forme ngay indi ngan dem forme ngay indi contre la de guerre mais da ngay eppal ba ñew dana sa bop Papa teel gir yalla ndoxum tey papa da a war a teey am nga forme mais da ngay teey jàpp bëri mais da ngay ñëw contre nees tamit noonu ëppal yaay daan sa bopp teel Baye Fall boo teeyee rek maanaam di nga daan sa bopp li ma def sama bëriwul Ama a moom sël bu ndaw amul lu ñu koy xool bien rek mooy la day bëri bëri góor day dox sa kaw bëri tu vois benn défaut la mooy maanaam moom it Ama bu mu soxla soxla parce que moom it parfois day ñëw bëgg la imposer defaloo comme ni mu defoon contre guy gi te looloo ko daan Ama day bëre xol tamit moom la dalee imposé quoi mais sans loolu Ama moom nice quoi nice moom daal taxaw combat bu neex lay doon combat bu neex lay doon mais Papa Sow moom vraiment na na bàyyi na bàyyi nu muy bëree quoi vraiment ëppal na dafa ëppal quoi na trop trop trop moo ko bul doole ñaari doon waroo ko jéem ko ko quoi tamit nga respecté Papa Sow quoi tu que man Papa bokk na si mbir yi gën a neex communication bu nice la yor du dépassé kenn du kii kenn waaw con la woon tu vois tey spécial làmb la woon waaw mooy loolu quoi wax suñu xalaat quoi.